Bonjour chers auditeurs, ce numéro 124 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui eh de fin d'année scolaire où les enfants, certains enfants se retrouvent à une période où ils doivent faire des choix, euh, de filières, eh Alors, Mariam, question très importante pour nous les parents, euh, pour les parents qui ont des enfants qui sont en classe de terminale, etc. Devons-nous de, de, devons-nous laisser nos enfants choisir seuls ou devons-nous les aider Ah, eh bien, c'est une bonne question. En réalité, les enfants ne choisissent jamais tout à fait seuls. Ils choisissent toujours sous l'influence de quelqu'un ou alors de plusieurs personnes. D'abord, euh, l'enfant va être attiré par un métier, par un certain type d'occupation, en tout cas professionnelle, parce qu'il admire quelqu'un dans son entourage. Il va être, aussi tenté par euh, d'autres euh, que d'autres personnes, telles que les conseillers ou conseillères d'orientation, les professeurs stress que l'enfant a eu au, même au, en primaire, donc en élémentaire, euh, lui aura peut-être un jour donné un conseil qui va l'orienter. Donc ce choix n'est jamais tout seul, donc c'est toujours un choix qui est orienté. Donc je dirais que nous euh, qui sommes les parents, ou nous qui sommes les tantes, qui sommes euh, les oncles, qui sommes les grands-parents, nous devons en fait euh, entourer les enfants de nos conseils, de notre vision et lui faire se poser les bonnes questions, parce que bien Alors, Mariam, y a-t-il un bon ou un mauvais choix Comment est-ce que on peut dire à son à son fils euh, qui nous dit euh, je ne sais pas moi je veux dire un peu n'importe quoi mais euh, si par exemple le fils dit qu'il veut être footballeur on sait un peu ce que ça donne quoi, parce que là c'est la question cornélienne parce que euh, comment euh, en fait euh, il y a de l'argent d'un mm-hmm. côté peut-être il n'y a pas un très grand avenir parce qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter est-ce qu'on lui dit non ce n'est pas bien fais plutôt ça comment est-ce qu'on fait ça comment on les aide dans ce choix là et comment on leur dit c'est pas bien ou c'est bien Alors c'est vrai que dire à un enfant non tu ne feras pas ça, peut complètement le braquer, ça peut faire que l'enfant euh, dans la filière dans laquelle on va le pousser, il va peut-être euh, être beaucoup moins performant, faire beaucoup moins d'efforts. Donc je, je, conseillerais vraiment de ne pas y aller avec euh, brutalité ou en disant c'est comme ça ou rien. Euh, tu as cité l'exemple de footballeur, mais un enfant peut très bien dire à ses parents qui, peuvent être horrifiés par sont pas forcément des métiers infamants, hein, mais il y a des parents qui ne voudraient pas que leur enfant soit cuisinier ou cuisinière, euh, mm-hmm. qui ne voudraient pas que leur enfant euh, décide euh, d'être, chauffeur routier, etc. Alors qui vont considérer que ce sont des carrières trop dures, trop ingrates, et qui vont vraiment rêver pour leur enfant de carrière derrière un bureau, alors qu'il y a des enfants pour qui c'est horrible d'imaginer qu'ils vont passer leur vie métiers qui existent aujourd'hui en ne sont pas les métiers du tout qui existeront ou n'auront plus du tout cette euh, la forme qu'ils ont aujourd'hui en en Donc quand on a un enfant qui aujourd'hui par exemple a 15 ans, qui va entrer euh, sur le marché du travail euh, dans 10 ans peut-être, euh, eh bien dans 10 ans, il va trouvera là-bas, personne ne peut vraiment le prédire. d'une certaine façon, on ne peut, orienter qu'en se basant sur des données journée que nous avons aujourd'hui sans vraiment savoir de quoi demain sera fait. Et peut-être que notre enfant a le nez creux et finalement fait les bons choix. Et je le choix, dans lequel l'enfant se sent à l'aise. C'est le choix qui est fait en fonction des capacités de l'enfant, en fonction de, euh, ce dont il se projette plus tard. Et j'ai l'habitude de dire que quand un enfant euh, s'interroge sur ce qu'il veut faire plus tard, donc même un adolescent, eh il faut lui demander euh, de, de quoi il se sent capable. Euh, donc, quels sont ses talents en réalité Qu'est-ce qu'il pense être ses talents Et ça, ça va amorcer une longue réflexion. La, la réponse peut ne pas être immédiate. La deuxième question, c'est de demander à l'enfant euh, de, de, quoi il a envie, en fait. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir Et euh, comment, dans quoi il se projette lorsqu'il sera grand, en fait. Et donc, euh, et ça aussi, donc par exemple, est-ce qu'on va travailler en pleine nature Est-ce qu'on va travailler dans un bureau bureau Est-ce qu'on va travailler euh, en équipe Est-ce qu'on va travailler seul, etc. Donc ça, c'est ce sont c'est une question qui est importante. Et enfin, euh, la troisième et dernière question est une question qui est peut-être euh, un peu pécuniaire, on va dire. Est-ce que l'argent, c'est-à-dire ce que l'enfant va gagner, a une importance euh, pour lui ou pour elle euh, parce que on peut choisir un métier en fonction de ce que l'on espère gagner à travers ce métier il y a des enfants qui, ne sont pas particulièrement <laughs> intéressés par euh, des gains euh, mirobolants et qui ont juste envie d'exercer un métier passionnant et ça peut être intéressant aussi de se poser cette question là est-ce que ce métier qu'on a envie de faire c'est un métier qui peut nous faire vivre correctement et, elle-même, en fait, pas seulement des questions intérieures, mais aussi interroger les gens qui, exercent ce métier et euh, regarder sur Internet ou ailleurs. De toutes les façons, ce qui est sûr, Mariam, c'est que du moment qu'on excelle dans ce qu'on fait, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne bien pas sa vie en le faisant. On peut toujours avoir un enfant qui fait chauffeur routier, mais qui finit par avoir toute une flotte, en fait, de camions, euh, des magasins, de, des, des, pardon, des, des, euh, entreprises euh, de par le monde, etc. Merci, Mariam, et à bientôt. mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci suñu numéro 124 sud éducation ni ñu koy defee saa su nekk maak Mariam ñëw bokk plateau bi Mariam asalaamaaleykum. waaleykum salaam Aïda. Mariam loo ñu indil ci waxtaan wi. Euh, tey comme dañu nekk ci benn période examen période boo xamante ni aussi am na ay xale yu bay ñu nekk ci ay classes yoo xamante ni dañu war tànn ay options tànn ay filières ban bac la ñuy def yi suñu jógee brevet ban seconde la ñuy def euh, moo tax suñu waxtaanu tey dina jëm ci wàllum euh, étude supérieure maanaam suñu suñu amee seen bac lan la ñuy def après pour jàng métier. alors Mariam li ma li ma njëkkoon bëgg xam xam naa suñu waajur yu bari ñuy déglu loolu la ñu bëgg xam xale yi bu ñu bëggee choisir li ñuy def après seen bac ñun ñoo leen ko war a wax ñoom ñoo ko war a choisir seen bopp wala est-ce que bu baaxee dañu naan bii baax na bii ki lan la war a def exactement est-ce ñoom dañu leen di bàyyi rek lu ñu décider baax na. ah de toute façon xale boo gis mënul tànnal boppam ndaxte euh, dina am ay nit yoo xamante ni dañ koy dañ koy influencer maanaam dinañ ko jox ay ndigal euh, mën na nekk euh, ay nit yoo xamante ni ñu ngi ci seen ci seen école ñi ñuy woowee conseiller d'orientation maanaam mooy ñi nga xamante ni dañuy jox xale yi ay ndigal ci métier yi am ak métier yi nga xamante ni ñoom mën nañ ko exercer mën nañu am def métier yooyu te méngoo na ak seeni ay notes waaye am xale yi aussi dangay gis ay xale yoo xamante ni ci seen entourage maanaam xëy na benn oncle benn benn tata benn benn nit daal wala benn xaritu famille bi bu am benn métier boo xamante ni métier boobu dëgg-dëgg daf leen intéressé depuis ñu nekk xale et dañuy màggaale di waxaale que ni vraiment métier bi mooy métier bi ñu bëgg a def euh, xëy na parce que nit ki ñu gis noonu ni ni muy doxalee daf leen neex wala peut-être aussi que dafa am oto bu rafet ñu ne xëy na métier boobu <laughs> dañ ci am xaalis et cetera moo tax mën nañu wax ni xale boo gis suy tànn euh, ay filière am wala métier bi mu bëgg a def wala jàng yi bi mu bëgg a suivre euh, dafa dafa am influence te ñun nag seen i ay waajur li ñu mën a def mooy di leen di di leen jàppale di leen dimbali aussi pour que ñu ñu uti ay renseignements ba pare di leen jox ñun ci suñu bopp ay ay ndigal waaye surtout bañ leen forcer ci dara. léegi marié bu xale yi xasee ba tànn euh, naka la mën a waxee ne ah sa choix bi doy na waar baaxul euh, et cetera ndax mënoo seet leneen damay jox exemple bi nga xam ne xam naa moom ñëpp dinañ ci gis seen bopp xam nga sama classe gi ni ñu mel. Mm-hmm. Euh, football dafa am xaalis. Mm-hmm. ci ñi mën a football bu baax a baax boo amee sa doom sax moom peut-être yow gisoo ci moom talent bi mu fopp ne moom la am mu ne moom football la bëgg a def xam nañu fi mu nekk sax ay sport études ak yooyu na mais nga nga bëgg koo bul def loolu defal plutôt lii après football bi ko def ci et cetera ndimbal boobu daal ak ni ñu leen di accompagner ci choix bi laa bëgg a xam nga dimbali ñu ci naka lañ koy defee parce que parent waajur aussi mën na bëgg naa mën a def lu baax mais daf koy bëgg ba far nga nga xale bi nga braqué ko ba mu mu tëju dootul bëgg sax wax ak yow wala mu choisir loo xam ne neexu ko pour neex la yow naka lañuy defee loolu Euh, comme ni mu la ko doon waxee sànq de toute façon mënuñu forcer xale mu def dara mm. mais comme yow da nga jël exemple footballeur mais euh, am na yeneen métiers yoo xamante ni xëy na sax mag yow mën nañu euh, teg métiers yooyu ay teg ay métiers yu baax mais am na yenn ay waajur yoo xamante ni métiers yooyu daf leen di tiital wala métiers yooyu dañ leen considérer comme ay métiers yoo xamante ni baaxuñu par exemple am na ay famille yoo xamante ni suñ leen su leen seen doom waxee ni dafa bëgg nekk kuy togg wala dafa bëgg nekk kuy dowal ay oto oto bagage loolu daf leen di metti parce que dañuy xalaat ni loolu du ay métier yu metti la wala ay métiers yoo xamante ni amul xaalis bu bëri wala ay métier yoo xamante ni dafa am ay danger ak yooyu euh, mais c'est vrai que ni mënuñu forcer suñu doom ci dara et puis il faut ñu jàpp dara mooy que ñun li ñu xalaat ni ñuy xalaatee ak ni ñuy gisee yenn métiers yi tey jii nga xam ne ñu ngi ci atum 2021 métiers yooyu dina fekk ñu changer lool su euh, bés bi nga xamante ni suñu doom dina dugg ci marché de travail dina dina am âge euh, commencer liggéey moo tax aussi même su fekkente ni ñun dañ leen di jox ay ndigal il faut que ñu jël en en compte que ni même conseils yi ñuy joxe tey jii mën na nekk ay conseils yoo xamante ni amatuñu benn valeur ëllëg moo tax euh, damay wax toujours que ni euh, suñuy doom suñu suñuy suñu nekk suñu tollee ci diggante nekk euh, fenn foo xamante ni benn classe boo xamante ni dañu war a tànn ay option wala tànn ay filière ñu xamante ni suñ ko tànnee ba pare loolu dina déterminé lu bari ci seen avenir dañ leen war a laaj ñetti laaj benn bi mooy xool ñoom ban talent la ñu am maanaam lan la ñu mën a def lan li nga xamante li ñu mën a def yëpp la ci lan moo ci gën en fait maanaam par exemple xëy na ñoom dañoo mën a dessiner wala dañu ay ci mathématique wala dañu ay ci français wala dañu dañu am mémoire wala dañu ay ci science loolu la ñu war a xool lan mooy seen talent particulier ñaareelu laaj bi mooy euh, lan lan moo ko neex ci àdduna lan moo nekk ay guuwam lan moo ko gënal sax ci euh, xëy na matière yi muy def wala ci métier yi muy gis euh, ci ci ñi koy ñi nekk ci entourage am métier yi ñuy def lan moo lan moo ko ci gënal lan moo ko attiré et su fekkente ni moom xalaat na ni que ci métier yooyu dina ci gis boppam est-ce que métier boobu mën na nekk benn métier bi mu mën a exercer su su màggee ñetteeli laaj bi aussi mooy que ni ñaa ñaata la bëgg a gagné ndaxte loolu aussi dafa nekk laaj bu important ak euh, pour pour euh, choix bi ñu naa a def ndaxte am na ay métiers yoo xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko du du indi xaalis bu bari doo par su kenn newee dafa bëgg a nekk assistant social wala dafa bëgg liggéey ci euh, lu loo gis mu nekk lu social ci benn orphelinat wala yooyu yooyu dafa nekk ay métiers yoo xamante ni dëgg ay métier yu am solo la mais ay métiers yoo xamante ni di nga ci am ay salaire yu yu yu important mais am na yeneen métier yoo xamante ni soo bëggee ñi bëggee liggéey ci finance wala ñi bëgg xëy na ñi bëgg a nekk sax avocat wala ñu bëgg a nekk euh, ci si yenn métier scientifique yi wala médecin yooyu mën na nekk ay métiers yoo xamante ni wala ingénieur dañ ci gagné euh, euh, xaalis bu xaw a bu xaw a bari loolu yëpp aussi mën na parce que xale boo gis aussi mën na def ay choix en fonction de li mu bëgg a gagné plus tard te mën na nekk laaj yooyu mën na ko ci mën na ko jàppale ci choix bi mën naa def. Euh, comme ni ma koy waxee rek an euh, Mariem li leer ba leer mooy loo ci mën tànn rek loo ci mën ci def rek na nga ca gën. nan nga ca def li nga xam ne da nga ci comme ni ko nasaraan di waxee danga nga ciy exceller mm-hmm. maanaam yow yaa gën ca nañ koy defee comme ça même bu fekkee ne sa doom dafa ne dafa li ko intéressé mooy dawal ay camion sax mm-hmm. mun nga dawal ay camion pare am xaalis bu dul jeex ndaxte mën nga am ay camion yu dul jeex am ay entreprise yu dul jeex di dem dëkk dëkk mun na nekk lu nekk donc bu ñu xeeb dara tubaab wax na ko y a pas de sot métier amul benn métier boo xam ne daal métier bu jar a nit ki la parce que ku nekk ci société bi rek soxla nañ la ku bu ñu métier yu bari yooyu moo tax société bi mën a dem jëm kanam euh, chauffeur bi dañ kaa soxla plombier bi dañ ko soxla mécanicien bi dañ ko soxla ingénieur bi dañ ko soxla docteur bi dañ ko soxla wasalaam. merci